dikkati naa Yewwi Askan Wi day xar na ñaar Walf Quotidien ko xam ne Tribune yéen kaay ne ko kaay balaa ngay sori ma xamal la ni nag ma ne la Benno Bokk Yaakaar moo njëkk xar ñaar bal tàkk sagar xeeñ réew mi coow ko joobe ko yéen kaay bi dee média bi ne ma tey lii laa xëy ak yéen Amadou Ba mi nga xam ne nag war na janoo ak candidat yi nga xam ne dañoo xëy daal di ne président Macky Sall ñoo tey dem ñoo yey dem dañoo samp suñu ndënd gu waroo ak nga xam ni moom nga ñu tànnal daal di ñaabar ñaabari wax seeni grand bubu daal Sall ngaari lam ay baay ñoo ngi sunu yoon te xam nga ñooñee bu nu jàkkaarloog Amadou Ba dana mel ni la taasukat ba ne woon boo sàllar ñi ko sër du la wodd turbine yéen kaay ne la guerre des trois daal faw mu am diggante ñoom Amadou Ba Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye moom Mohamed Boun Abdallah Dionne l'observateur di ma xamal ne ka sañul woon dëkk président Macky Sall tey jii day moo koy rogo jeeru fëgg dënnam ci kanamu Sall nag naan ko ndënd li force la léegi nag ma ne la yemu ca daf caa boole dem ci plateau yi mel ni ko am fit nag di jàkkaarloog di ko joyoon teg di ko defaral toogukaayam Mouhamad Boun Abdallah Dionne l'observateur naan man takk na fit wa turbine yéen kaay naan man te fit takk baaxul ci Amadou Ba ñu wax ko te Fatou Ba dund rek baaxul mukk ci Amadou Ba Vox Populi naan man en tout cas lu baax ca Amadou Ba de ca njum day mobilisation gu doy waar Cheikh Omar Anne mani la mel ni ku naan fii mus du fi naane ñeex ku jàppale Amadou Ba ak président Macky Sall ñu def ko ku ko deful ñu def ko daal di mobiliser ci final boo xam ne daanaka département bu Podor yépp génn te coow li coow li mooy maire bu njum nee na sabab gi lenn la moom moo di daal di dajale waa Podor gi yëpp ngir ñu xoolandoo fenn mooy fexe mani la ba yeggali yéen ak président Macky Sall fal Amadou Ba ndaw ya génn kay di félicité président Macky Sall ci réalisation am responsable Benno ya daal di génn askanu Podor daal di génn Cheikh Omar an naan leen fayee naar yu xoromam moom moo di fal Amadou Ba ngir yéene président Macky Sall mën a mat ci réewum Sénégal waaye nag Podor nañ ci jiitu ndax nag Podor ci boppam titre foncier bu président Macky Sall la te sàkk nag askanu Podor di ko lañ ko bëggee lii ko di jee naan man démonstration de force daal la Omar Anne def sa te yéene gi moom moo di palluk Amadou Ba ci élection présidentielle 2024 yi tribune yéene kaay naan kon Amadou Ba bu mu fàtte mukk ne ci biir coalition am ci boppam am na ñoo xam ne rocceeku doon génn samp seen dënd fas yéene jaamaarloo ak moom te loolee ma la bu ko doggaliwul fa yallaaxu ngeen xam ni der la waxtu woow tribune yéene kaay naan man daanaka élection présidentielle 2024 yi mandat baa ngi nii ci bitti ci bitti ku sëgg-sëgg bu gën a jeeg gën caa am Pastef caa farlu waaye tam gën caa mën a sonn day di daa ko for parti démocratique sénégalais nga xam ne yaakaar amoon na ci ñu foqar ci nguur gi fi mu ne ñu ngi ni nemm dooruñu paasuñu xeexuñu attewuñ xeex fukki at ak ñaar ci ginnaaw fa ñu nekkoon parti démocratique sénégalais passé wu ko yeewi askan wi moom daal dinay tas tasar Walf Quotidien naan lii laa waxoon di yeewi askan wi daal dinay tas réew mi Quotidien naan ko diggante Pastef ak taxaw ko daal di tas l'évidence yéen kaay naan kon Pastef ak taxaw bayantoo daal moom moo ci am ndax nag dañoo bàyyi ba nga xam ne ña ngay taxawal bureau assemblée nationale ba Biram Souley Diop ñaabar ñaabari joxe seen waa bureau ndekete defu ca nag député yu taxawu ya député yu taxawu ya mer ba futu daal di seen bopp ca liste ya ne daal dinañuy démissionné ci groupe parlementaire yeeyu askan wi l'info yéene kaay naan man mbéj tàpp wala xët la en tout cas fayantoo la vox populi naan kon fayantoo gi sax dafa yàgg la amoon ca Abbas Fall ca mairie bu Ndakaaru Biram Souley Diop fayul na ko ko barki démb ci assemblée nationale yéene kaay bi naan fayantoo goo xam ne ma ne la daal dinay doggali taxaw xar-xareet yeewi askan wi nga xam ne soxlawu ko moom yeewi ci boppam ñett ciy bureau ci assemblée nationale ñàkk na ko ndax ay député yoo xam ne wàññeeku nan moom Birame Souleye Diop nekk ci ruqam di teex teex may ree Aba Mbaye naan soxor ñàkk xam politique ni muy doxee lii nag mën naa xañ yeewi askan wi doxalin wu baax ci assemblée nationale ndax nag fi mu ne lii ñu def ni kenn du ca gañe ku dul waa Benno Bokk Yaakaar nga xam ne dañu naan faax ca assemblée nationale fas yéene defanteeg ñun l'évidence yéen kaay ne ma leen foqartee leen fi mu ne waa taxawoo nga yor seeni mandat di tuñ amuñu fenn foo xam ne foofu lañ mën teg seen i bagage bokk ci groupe parlementaire ba turbine nan kon candidat yi ci biir yeewi askan wi bari nañ lool yéeni kaay bi des média bi naan waa opposition bi jël leen siis nag ma yedd leen ndax nag fi mu ne ñi ngi jëm ci élection présidentielle yoo xam ne kenn mënta fëgg sa dënn ne may am ndam te ku ne maay gagné premier tour wax nga la la neex rek jaaxaan outsider yi nga xam ne noonu lañ leen dippee sax ma ne la mën nañ dugg palais à tout moment bennoo ci boppam ma nga xam ne moom lañ jàppee woon favori tey jii ay chance ngir nekk nekk président wàññeeku na ndax ñoom seen biir dañoo xar xareet ni lekket gu bàyyeekoo ñeen fukki étage tab bi suuf opposition bi nag leen dong moo ko mën a jox nguur gi mooy ñu booloo doon benn daal di booloo ci pôle goo xam ne moo leen di may doole may leen sañ-sañ ngir ñu jël réew mi l'enquête quotidien naan kon boobu cees day kenn gisu fa Idrissa Seck muy gëndi di deltu ginnaaw ca cees goo Thiès si gi jot na bu Abdoulaye Dieye daanaka di raatale cees googee moom jiital AIBD nekk en ordre de bataille ngir nag parrainage ngir élection présidentielle yi Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar mel ni ku nekk ci loxoom yéen kaayub dee média bi naan man boobu dey candidat yi tey la gën a sakkan wala Mohamed Fadel Koné kenn la ci ñoom yéen kaay bi sampub laaj ci kan mooy ki nga xam ne moo xam le ni wàlluk civisme ak wàlluk citoyenneté buñ ca jaaree dey senegal daal di ñoŋ waa grand place naan man Alioune Sarr candidat la ma ngay xam le ni nag or bi ci réewum Sénégal buñ ko exploité andi ci ay saafaraaki réforme naka la ñu mën a yokkee juróomi téeméeri junniy milliards ci koomu réewum Sénégal ci tournée ga mu nekkoon ci biir réew mi njiital 2024 di mérite bu nooto jobaas xam le ni Sénégal daanaka talent gi ci wàllu bijouterie du fi jeex te or gii ma nga ci Kédougou ci réew mi Alioune Sarr ne bu ñu ko exploité ci anam wi gën daal di jox gëdd ñi nga xam ne ñoom lañ duppee suñu bijoutier yi Sénégal day mën na caa am alal goo xam ni dee su ko le ci réew mi Alioune naan senegal mën naa bañ a jéegaani comme fenn ndax am na lépp fii waxtu woowu la point ak ci di ma xamal ne ci génnam bu njëkk gannaaw bi nga xam ne soxnaam faatu na moom bu gaan gay dani day ma ngi def ci marché boo xam ne daal di xeex bu sein ak col bu utérus fii ci réewum Sénégal yéene kaay naan maan soxal octobre rose bi moom Bougane Gueye Dany daal di cay profité xamle ni paj bi day nañ ko ñoŋal soxna yi gouvernement gu Sénégal na soobu ci xeexu cancer gi nu mu gën a gaawee ndax yaa ngi ciy faatu ànd ceeg métit yoo xam ni maar day taali xeex bi xeex bi fi mu ne dafa war a tàmbalee ci taxaw askan wi ci paj gi yombal leen ko waaye tam fexe ba ko am woppu cancer ci réewum Sénégal ñu fajal la ko ndax am woppu cancer donc doy na xalaat boo ca yokkee amoo loo ca fajoo Bougane Bougane Gueye Dany ne xel daal di Lambert Faye Allaahu na nguurug Sénégal taxawu ñi am woppu cancer plaidoyer bi mi ngi ko def démb gannaaw ci marche boo xam ne ñi ko amal ngir xeex woppu cancer ci réew mi l'observateur naan ay kàngam kayen ci réew mi moo tax ña leen di takkal ay raaya fu ne Mamadou Yatta Saay def nañ ko meilleur investisseur bu Afrique de l'Ouest l'évidence ne ma Dakar dem dikki ak directeur général ba ci galaayu téeméer entreprise ak manager yi nga xam ne ñoo ëpp sañ-sañ ak pas-pas ci réew mi dina leen fay tabbal ay raaya gannaaw fukki ak benn yoo xam ne daal mooy taxaw ci kanamu dakaar dem dikk moom Ousmane Sylla di maire bu Kédougou waa galaa bi ne ko joyanti nga Dakar dem dikk te mu naan leen it yeneen defi mu ngi ñëw ndax fi mu ne nag bëgg nañ yeneen yu yees daal di am ci biir Dakar dem dikk rawatina nag yombal askan wi dem beeg dikk bi tribune yéen a kaay naan man waa Afrique day ña ngay bëgg lu yomb waaye nag Wakk Njaay consultant la ma ngay wax nag ci vaccin yi nga xam ne fondation Melinda ak Bill Gates dinañ ko def ci réewum Sénégal muy laajte nag ndax loolee ci wàllu technologie du lu mën a andil jafe-jafe dénduk